Amnesty International woon benn congrès panafricain ngir xeex ak ak fu doomu aadama fii ci Dakar ci atum 2003 ci la ñu créé woon benn mbootaay ku ëmb bépp kuréel buy xeex ak ak fu sénégalais ci seen programme ngir renforcer capacité yi organisation yi ñoom membres yi ñoo ngi ciy profitow di ñaawlu arrestation yu bari yi nga xam ne nekk na ci réew mi fan yi euh, di wax ne tey ci Sénégal am na ay infraction am na ay délit yu bëri yoo xam ne euh, mu ngi yóbbu nit ci biir kaso ci réewu démocratie yóbbutul kenn ci biir kaso. ci loolu ñeent fukk ak juróomi membre yi nga xam ne ñoo bokk ci biile coalition. ñoo ngi xeex bu baax ngir ñu gën a jox àq ak yelleef ñi nga xam ne ñooy liggéey. ci presse bi. lii bu Pape Ndiaye wal fajiri tey ci biir kaso lii woon Pape Alé <laughs> ak Babacar Touré loolu réew yu bëri fii ci biir Afrique. yóbbu journaliste ci biir kaso dañuy dépénaliser délit dépénalisation loolu moom exigence la. ba tey bii la mbootaay yi moo ngi ñaawlu tamit li nga xam ni moo di retour de parquet. retour de parquet benn texte loi prévoir ko. bokkul ak sàmm ak ak yelleef doomu aadama même su dee benn loi terew ko waaye tamit benn loi n'est-ce pas euh, nangu ko. waaye mbootaay gi moo ngi rafetlu bu baax li nga xam ni moo di dialogue bi ñu sumb. dañuy daal di ñaax ñëpp ñu dem dialogue waaw ndax. nga dialogué euh, pour n'est-ce pas xuloo xee ak bañ a xam bañ am moo gën euh, nga taal sa réew ba pare mujj toog di dialogué pour fay safara yi yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bii di xeex àq ak yelleefu doomu aadama ñoo ngi amal benn séminaire de formation jagleel ko yokk xarañteef ñi nga xam ne ñoo bokk ci bii la coalition waaye tamit bëgg bii la coalition tijjeeku bu baax ci bépp réew ngir dooleel xeex àq ak yelleefu doomu aadama